xam-xam ak yare maanaam yare ay seex lañu yoo xam ne benn bu ci dem wacc moroom rek adduna yàqu ñu dem ba toll ci diggante boo xam ne xam-xam dem na yar bi des gannaaw xeet yi gën a jiitu ci kaw suuf ëpp doole wax ne ñoo ëpp xam-xam ñoo gën a civilisé ñoo ëpp man-man ñu def gannaaw ci yar ba seenu melo kenn mënu koo waxtaane lu ñu gën a tabax ay écoles yu ñuy jàngale lu professeur moral yi wala psychologie gën a bare lu jàngalekat yi gën a farlu dossiers yi ci tribunaux yi gën a fees kaso yi gën a fees gendarmerie yi gën a sonn avocat yi gën a bari gën a wax gën a coot xam ne kon doomu aadama daf mel ne dafay dellu gannaaw di gën a di gën a dëng di gën a dëng la kenn nit daan def kenn nit ëpp ko doole jàpp ko dem jaay ko aw xeetu lëmm ñoo koy def aw xeet wala ñuy rooxale diggante aw xeet ak weneenu xeet ngir nañu tardé bañ mën leen a ñu def ba faaw rek doomu aadama daal di fas ay diine boppam jëf diine boppam ci xelam ngir réeral diine yàlla rek ngir bew balaru amee la jullit ñi gees seen téere bi ñu naan alquran جس يلا واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم نجد لين حرار لب لغين من تي كتن اكي ورواي اكي غناي نجد تيتل نوني يلا يلا خبني سيني نون لنو يين دي نوني يلا يلا دل دي سمتاني يلا دما دما ورا بمج مدي نخم سيمو جمع fi mu jëm daf ko war a xam lu ngir mu xam ko ki ko koy xamal a ngi daanu ci dem ba nu dugg ci mbiri tasawuf ak Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne man salaka tariqan yabtaqi fiha ilman sahala allahu lahu tariqan ila aljannati képp ku soobu yoon di wuti xam-xam yàlla dana la leeralal yoonu wu jub xocc wu jëm àjjana sàkku xam-xam yemul ci ubbi téere rek wala góof ci sëriñ rek xam-xam nit mën na koo sàkkoo ci waxtaan nit mën na koo sàkkoo ci anam gu nekk jamono yi nekk sax nit mën na koo sàkkoo ci déglu rajo من وإن الملائكة لا تدعو أجنحتها لطالب العلم ربما ما يسمعه ملائكة داني يرسل الله كي كو كي ساكو خم خم مير بك وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى العيتان في الماء من برم خم خم نيجي كو أسمان يب أني سوف يب دانكو ساكو دانكو ساكو مير بك يالله بس يجن يجن يجن يجن يجن يجن يجن يجن يجن يجن يجن يجن مدلنا وفضل العالم على العابد كفضل القمر على صائر الكواكب غني لا اجي خم تي كو اجي جامو مي دامي نيك وير ليله البدر نيو غنا لير بي ديوي نيو طلبوا العلم ولو بالسين صلى الله تعالى وسلم ني نين تاكو خم خم بالسين تاكو خم خم تامبلي سينيت كي جيدو با فين كوي تولي تي بامل نيو ابو هريره نينا رضي الله عنه تي صحابه الى بوكون yonent bi mësula dañ di ñu jàngal ay xam-xam di ñu yee waar ba kenn ku ne ci ñun bu picc naawee sax mu am ci xam-xam bu ko ci yàlla xamal boo xam ne keneen du ko xam jullit ñu njëkk ña jaaroon nañ ci yoon wu jub woowule gannaaw gi nag la ñu yox yoxi ba dellu gannaaw ba féete gannaaw ba dem ba seen diine di leen bëgg a rëcc te bu leen rëccee ñàkk àddina ñàkk alaxira ndax xam ak jëf li yàgg-yàgg lu la ñàkk xam mooy njal benn bi jëf moo ci tegu mu mel ne garab ak meññetam garab gi mooy xam gi meññet bi mooy jëf ci kon garab bu meññul du am njëriñ xam buñ ko jëfewul du am njëriñ xam jëf nag moo waral lépp loo gis moo ko waral xam nag ñu ngi tàmbalee ci bismillah turu yàlla waaye tàmbalewul ci bismillah ilmi loolu tax waa sowu yi yàlla sànq leen bi ñu toppee science te amuñu conscience mu ne jullit ñi bañ a nekk wala takunu kallazina utul kitaab min qablu fa taala alayhimul amadu fa qasat qulubuhum bu ñu nekk a joxoon téere bu mu la ràññal leen leen dëgg ak seen leeral yoon bi ñu war a jaar waaye yàgg mu yàgg ci ñoom ñu miin ko ba ko. tax seen ñu dem ba seeni xol wow ndax nit day jiddu ci l'islam di doomi julit gëm ne yàlla am na gëm gis bu mujj ba jëfi topp yi mu jiddu fekk ñi di ko def mu ànd ci ba mujj du dara ci moom lu dul aada du amuk teewlu la taxoon ñi sàkk ñi santaane jëf ci du ca ànd muy ay yëngu yi rek bu ko defee mel ne jëmm ju amul roo loolu mooy indi xol bu wow ba jëf ji dootu jëriñ nit ki loolu lépp li koy indi mooy fàtte ëllëg topp adduna te adduna ak ñàkkam solo toll na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma dunya fil axirati illa kama yaj'alu ahadakum isba'ahu fil yammi fanzur bi ma yarji'u adduna ni mu demee ak alaxira mu ngi mel ne nga fab sa baaraam bi sëpp ko ci géej mu ne seetal liy tax ci sa baaraam ni mu wuuteeg géej gi noonu la adduna wuuteeg alaxira te adduna li muy ñàkk ñàkk solo bépp xéewal bu ci nit xéewloo daañu ko ko laaj ëllëg dana wax na mu ko jóge ak ci lu ko sànq yaramam ñi dana wax ci mu ko ràppal dundam gi dana wax ci ko jeexal naka noonu mu musiba bu ko dal naka noonu bépp métit bu ko dal wala ñàkk bu ko dal wala naqar wu mu doon ak lu mu mën a doon daañu ko laaj ëllëg bu fekkee ne muñ ne ko ngir yàlla xam ne yàlla ak ko dana faxas bàkkaaram te dina ko indil texe dana ko indil yowmal xiyaam yoon yoo xam ne kenn du ko natt kenn du ko peese kenn du ko wàññi nee ñu bu keroogee bu ñu jàlloog ñi yàlla musibaaloon ci adduna kenn ku nekk ku ca bokkul woon da nga ngir jëw woon sonne woon ci adduna ñi di la siso ba sa yaram lépp def ay lawtan doomu aadama dafa ñëw fii ci adduna ngir jàng ak yaru war naa jàng lépp lu mu doon xam lépp lu mu doon xam nag la muy jëf ak la muy bàyyi